xam nga loolu bu fekkente ne dañ la doon topp yoon rek député bu nekk en pleine session ñu ko mën a convoquer mais comme ñu ci réew moo xam ne euh, ñu koy doxal daanaka li leen arrangé li leen neex lañ xam moo tax ñoom faale ñu yoon quand ça les arrange ñu doxal quand ça les arrange pas aussi ñu def neneen donc euh, ci biir assemblée nationale ne day yëpp Sénégal li nga xam ne am na fi yow en tant que honorable député waaw dafa euh, mbir moo xam ne dañ koy ñaawlu parce que jàpp nañ ne assemblée nationale ay débat d'idées xalaat weccoo xalaat moo la waroon doon mais warul doon arène donc mais bu ñu topp rek ci li xew nañu xool li ko waral je crois bu mbir amee da ngay xool da ngay def jàngat xool li indi mbir mi booy commencé condamné foofu la ñu war a commencé condamné mais doo topp ci xeex bi rek parce que lii du tey tey la commencé amaana tey la ko caméra yi euh, fekkee avant lii en commission mais ndaw soosu gis nañu ab kilifa ab honorable mu saaga ko amul saaga bu ñaaw bu mu tegul ci ndonam yemu ci mu jóg fekk ko fu mu toog bëggoon ko song ci biir session bi loolu amoon na fi baara dolli voilà loolu amoon na fi mais comme amuloon caméra donc mënuñu ko woon euh, euh, vulgariser. kon li waaw mais loolu dañ koy dëggal parce que tey je crois que même euh, journalistes yi nekk au niveau de l'hémicycle gis nañ ko dund nañ ko ñun da ngay jël parole boo waxee li leen neexul ñu dal sa kaw saaga la yuuxoo la lu nekk def nañ ñu ko mais gis ngeen aussi ñoom ñooñu di wax tey ne dañuy porter plainte. jour installation bi gis ngeen ne jàppoon nañu benn euh, député bu jigéen Yewwi Askan Wi xeex ak moom euh, xëcc greffage am voilà def lu nekk mais atterrirul fii anak boobu président de l' assemblée nationale donc voilà autant de question yoo xam ne tey euh, mi ñuy indi ñu poser les véritables débats au niveau de l' assemblée nationale par rapport surtout ak son président président dafa war a toog njaaxanaay waaye président boo xam ni dafa xaw a jeng vraiment doy na waar. ndax rapport wax euh, na xam nga am na lu jiitu sax rapport bi amaana rapport bi c'est un rapport à charge rapport bi li ko li ko li soxal moom nu muy diigalee ñun suñu camarades yeew yi mais avant rapport bi gis ngeen ci prise de parole yi président boo xam ni député day toog te règlement bi da koo interdit député buy wax kenn waru koo dagg. mais gis nañ ne il suffit que député yeew yi taxaw commencé wax ñu commencé koo dagg te président du rappeler ñi à l'ordre bu ñu yuuxoo ba mu commencé perturber ci lay jóg ne il essaie de rappeler les gens à l'ordre je crois que dund ngeen ko ak ñun xam ne waa ji wax dëgg yàlla il n'est même pas à la hauteur pour dire vrai. mais euh, euh, honorable bu fekkee nañu bëggoon ñëw un peu ci motion de censure bi. Mhm. Euh, waaw je crois que président Biram suñu président groupe parlementaire wax na ko parce mu laaj confiance wu assemblée nationale mais defu ko suñu président leeral na ko bu ko deful dañuy déposer et je crois que démb euh, président groupe parlementaire dugal na motion de censure aussi waaw baax na jërëjëf euh, honorable ñu ngi lay sant di la gërëm euh, parce que comme ni ngeen ko ni ngeen ko waxee nee nañu comme que euh, président groupe parlementaire moo ko déposé donc moo moo ci mën a wax nga nangul leen ko ñu xaar ko xëy na moom soriwul mais buñ ci jotee xëy na dinañ ci indi gën a indil yeneen i leeral merci beaucoup honorable Chérif Ahmed ko